Cheikhul Khadim di ko ñaanal yàlla yàggal ko te wéral ko te mottali ko ay yéene ci liggéeyu Cheikhul Khadim bii muy taxaw di ko taxawul maamam ak i wéyuram ak magam di dox xool digganteewu liggéey ñu ngi yëkkati ci kàddu cant di ko teg ci loxo yi sëriñ Abou moom Cheikhul Fadal sëriñ Cheikh Sidi Mokhtar Ka waxoon na ko sëriñ bi mu yëgee Serigne Moustapha dafa nekkal Serigne Abo ci biir kër Cheikh Abdoul Amin di ko wattu njaboot bi ba na lu mel nii ba ñëwee ci moom daa daal di dem ko lépp xam ko ne ko la Cheikh Abdoul Amin daal wax rek laay wax ne woon na man uma daal tëruma kenn sama lépp ci biir Serigne Fallou mu delloo ko Serigne bi sëriñ Abou mottaliwaat na ko ca la weesu ak bisu tey ndax tey li muy xat-xat moom njëkk a xëy si te daluwaay bi sëriñ nekk ngir saafonte ak moom waaye ku gis jataay bii xam ne njabootu Cheikh Mouhamadou Fadal bii teewal nañ ci sëriñ Abou ngir diggante sëriñ Abou sëriñ Baara njabootu sëriñ Fadal bi waaye ñëwaat nañ ci seen ay yéene bopp yoo xam kenn ku ci nekk ci ñii fi teew kenn ku ci ne amoon na diggante sëriñ bi diggante boo xam ne feeñal na si waxtu lu mel ci fi sëriñ bi nekkee ak lu ñu laa ko sëriñ bi kon Cheikh Ousseynou mu ko wax sëriñ Moussa ñu ngi ñu ngi leen di gërëm cant boobu yi nag euh, da ci yóbbaale géewu ñaari mbokkam yu baax yi te bu ko defee rek ñëpp a ci biir muy sëriñ Cheikh Abdoul Karim moom Cheikh Abdoul Fall Serigne Abdoul Khadir moom laaj ko bu sambare fayu mi ngi leen di cant cant koo xam ne am na tàmbali waaye amul am yow waaye di yëkkati tamit ay cant yu yaatoo yaatoo yaatoo jëmee ko ci fii ma dajee Masaalikul Jinaan am na taarix waxtaankat yi dañ ci waaye bu lii taxawee ba li fi taxaw taxaw fi am na taxaw taxaw fi mooy jëmmi barab bi am te barab bi euh, ñu bari leeral nañ amee bi daa am fu bàyyi ko ci kan la bàyyi ko ci kan la ko jëme waaye ci kan la ko jaar ci fi nekkoon jiitu réew di son excellence maître et président Abdoulaye Wade kenn ku ci nekk xam ne yéene ak bëgg-bëgg ci xolam ci liggéeyal Cheikhul Khadim yëkkati barab bu mel nii ci dëkk bu toll nii jëfal ko ko kan Cheikhul Khadim waaye fan la ko jëme pour mu àgg ci Cheikhul Khadim alhamdulilahi rabbil alamin ci tur Sëriñ Moustapha ak njabootu Cheikhul Khadim mu jaarale ko ci Cheikh Abdoul nga xam ne ak bëggam ak yitteem ak yéeneem leesu liggéey sëriñ yi di ko jaarale ci Sëriñ Khadim tax na barab bi am barab yu ko jiitu am xew-xew yu bari yu fa jaar sunu maam yu baax de Cheikh Abdoulaye am na mu jëfandikoo ak njabootu Serigne Touba gi nekk ci Dakar bi ca ba ñu indi yittee barab ba lam ca jëfandikoo woon yéen barab boobee la fay taxaw mooy julli yi te bokk yi la ñu fay taxaw muy julli julli juróom ba ba it di ñëw jël ko teg ko ca loxo ñooñu ndax julli farata moo gën julli sunna kon loolee ba ko Cheikh Abdoulahi defee yéene ak xam ni lislaam war a doxe ak doxinu Cheikhul Khadim taxoon na mu jëf am lu ca lëpp day ci jot muy dox di dox ba agsi ca barab bee nga xamante ni bi fi ak Cheikh Saliou Mbacké nekkee yal na yàlla ko di jëggal ak leeral amoon na yéene taxawal fa barab mel nii pas-pas bu yéene yooyee na mu jox Cheikh Mouhamadou Moustapha teewoon nañ bis boobee mu te xeewal ngir bëgg faa naaral Cheikhul Khadim bu mel nii ba tey loolee nekk beneen denc muy denc ci denc ci Serigne yi war a ñëw ni ma ko waxee dencal ko sëriñ Faliilu waaye nag ko jaarale ci kan Cheikh Mouhamadou Lamine mi nga xamante ni kenn ku ci nekk ci ay bokkam yi nga xam ne la bokkal sëriñ bi ak pas-pasam ko yàlla dénkoon ci ko xam wallaay alhamdulilah da nga xam ne sëriñ Bara amul jënd yitte lu bëgg sëriñ Faliilu te loolee day nekk càllal dugg ci sëriñ Faliilu sëriñ Faliilu jël bosam def ci Cheikh Mouhamadou loolu moo waral lii kon euh, Cheikh Mamadou Ndérémine euh, taxawaay bi nga xamante ni am na ko ak pas-pas bi ba fii ni ñu ko waxee yaatu na barab bi tur barab bi ak mètre carré rëy na lool waaye ñu ko Cheikhul Khadim taxaw na ci turu Serigne Touba taxawaay yi nga xamante ni moo war a am ci lii tax barab bi ñu mën koo jëriñoo lëm ca njëkk a def mooy julli ga nga xamante ni murit yi daan nañ ko julli ca barab ba ñu njëkkoon soxla te jotuñ ci woon te ba ñëwee ci seen plan am nu mu demee daa mel ne loolee da cee barkeelu war ndax fii la ñëwal boppam am nu barab bi mel wax nañ ko sànq barab bi ku ci tudd président Abdoulaye Wade da nga ci tudd président Pape Diop da nga ci tudd Mbacke yu fay ci seen taxawaay yu rafet yi nga xamante ni. àndoon nañ ko moom ba yàlla dogal barab bi sol bi mu fi ñëwee jox leen ndigal diggante bu gàtt ne leen na ngeen fi julli kon mel na ne fañ daan jullee tabaski tey mu dem ba jot nekkul ci seen loxo delloo si na leen leen ne barab la ñuy jullee leen ci tabaski loolu ak tey la woon ba loolu sonte yéene la am ak pas-pas waññi lim bu takku wax nañ ko fi waxaat ko fi lam lu ko doon lay Sëriñ Tuubaa yi joxoon la mu delloo ko Sëriñ Tuubaa ngir ñu tàmbalee ko barab bi yàlla mi nga xam ne dara tëwu ko wàcce am dogalam ci jëmmam ji ba def Cheikh Sidi Muxtaar yal na yàlla moom it doon njëggalam taxaw ci taxawaay boo xamante ne bii tax na barab bi ak si fii mu agsi yàlla